je vais commencer par la Palestine parce que moom la ñu njëkk wax mm-hmm. je pense que effectivement ni ko doyen waxee mm-hmm. il y a un génocide organisé mm-hmm. avec la complicité des États-Unis d'Amérique et des pays occidentaux depuis 1948 ba nga xamee ni ci la ñu taxawal l'État d'Israël ex nihilo pare voilà comme ñoom accepté nañ leen indi leen dëkkal leen ñoom palestiniens yi finalement ñu dem ba ñoom ci seen bopp ñi nga xam ne ñoom ñoo leen dëkkal ñu jël leen def leen ci ay réserve parce que la bande de Gaza ni ñuy dundee noonu mën nga ko comparer ak américains yi bi ñuy doog a dem les colon colons américains bi ñuy doog a dem États-Unis jël Apache le mm. peaux rouges dugal leen ci ay réserve aujourd'hui euh, li wóor mooy euh, chaque c'est des vœux chaque fois les gens se réunissent ay euh, yi wala leneen leneen déplorer wala momentanément les deux disons je peux les appeler les deux superpuissances hégémoniques mm-hmm. moo xam Russie la mm-hmm. moo xam américains yi la ku ci nekk am nga sa clientèle au niveau du Moyen-Orient boo xam ni wala du Proche-Orient mm-hmm. saa yu loon saa yoo bëggee def effet bëgg def euh, pression ci sa sa sa sa vis-à-vis ki nga xam ne moom ngay jonganteel nga actionné sa ay sa ay euh, sa ay pions. Mhm. il faut les appeler des états pions. Mhm. comme l'Iran ouais. par exemple la Russie quand la Russie a besoin de quelque chose au niveau de de l'Ukraine bëgg am euh, yenn yenn yenn droit yi bëgg ci dugg te xam ni américains yi ñu ngi taxaw dañuy taal fale américains yi aussi noonu. bu ñu bëggee yëngal fenn. Mhm. dañuy yebal Israël mu daal di sànni ay bomb comme ça affaire yi mu am foyer de tension bi affaire bi commence escalade amaat ay mm-hmm. doomu aadama di ci dee gratuitement mm-hmm. te doole yamul parce que l'État d'Israël est véritablement une superpuissance militaire boo xam ni mm-hmm. pays occidentaux yi ñoom ñoo ko ñoo ko ngemb ñoo nekk ci ginnaaw donc vraiment lu ñu ñaawlu la le Sénégal nag a toujours joué un très bon rôle euh, depuis euh, depuis Senghor par rapport à la question palestinienne parce que on a vu que même Yasser Arafat ak ñoom euh, ñeneen ñi nga xam ne ñoom Abache ak ñooñu ñooñu ils ont toujours eu quartier au Sénégal. Mm. dañu mës di ñëw nu mu leen neexee. et tout et yaakaar naa ni sax mës nañ fi am siège boo xam ne siège mm. OLP nekkoon na fi. Mm. donc loolu daf lay wane la al Quds al Sharif aussi. que nga xam ni ñi nga xam Sénégal li mu doon euh, avec Moustapha Niass on on se rappelle lu mu nekkee ministre des affaires étrangères mu dirigé woon affaire boobu au niveau de des Nations Unies. Mm-hmm. donc le Sénégal a toujours euh, été à la pointe de ce combat à travers l'ensemble des présidents yi nga xam ne succédé wu nañ fi mmh. notamment le président euh, euh, euh Abdou mmh. a pris le relais de Senghor le président Ablaye Wade et Macky aussi qui a vraiment joué un rôle moo tax bi ma gisee ku mel ni ayo Ayoba Faye xama le journaliste là qui dit que oui euh, Sénégal mu ngi doog jël ay euh, mesures yu yu costaud mmh. contre euh, la contre Israël et cetera et cetera mm-hmm. vraiment ça a un peu rigoler mm-hmm. voilà parce que tamit bala ngay naan naam ne fa nga koo xam ne toogaguloo sax naka nga mën a amee marqué politique gu euh, mm-hmm. diggante euh, li nga xam ne moo nekk si diggante Sénégal ak euh, Israël et cetera et cetera il faut loolu wax la boo xam ni bon les gens ont vite rectifié ils savent que d'ailleurs y a ay audio ak ay vidéo yu nit yi circulé ci kii bi nga xam ne weddi na loolu complètement bref en tout cas c'est une question boo xam ne vraiment nit ñi war nañ ci war nañ ci taxaw les états war nañ ci taxaw. Mm-hmm. te loolu liy mën a tax états yi taxaw ci yépp mooy am ay états yoo xam ne dañu nekk ci ay organisations yu am doole. Mm-hmm. yoo xam ne danañu mën a peser de tous leur poids mais su fekkee ni par exemple la Oumma islamique et divisée. Mm-hmm. Arabie saoudite am pro-américain et cetera ñeneen ñi lii ñeneen ñi lale doole du am. parce que lii pour mu jeexal ko il faudrait pas aussi se dissoudre dans le G8 ou bien genre organisation euh, mmh. yooyu nga xam ne ñoo nekk en Occident mmh. man loolu ànduma ci waaw vraiment il faut des organisations africaines très fortes des mmh. organisations islamiques très fortes yoo xam ne am nañu doole boo xam ni sur le plan économique ak lépp mën a peser de tout leur poids devant ces nations là pour que effectivement les Palestiniens ñu arrêté li nga xam voilà. loolu moo tax muy c'est très important.